initiative bi mu ngi jóge ci cours de renforcement boo xam ne sama rakk bi Cheikh mbay moo ko yor di jàppale xale yi te xaarul ko ko ci jox dërëm donc bi mu koy jëkk a def mooy xale yi dañu joxe résultat bu extraordinaire mu fas yéene nag sagal xale yooyu ci koñ bi donc mu waxtaan ci ak ñun ñëpp ñu àndandoo waxtaan ci Seydou ñëw dugal ci loxom bu baax a baax ñu récompenser xalé yoyu nga xam def nañu résultat bi normalement moy 3e année initiative bi biñ koy jëkk def nak dañu renforcer won cours de renforcement bi lañ ko défalon exceptionnellement ñom lañ ko défalon mais daw lañ ko commencer nak ñu généraliser ko mu bok nak koñ bi yépp ñu bëgg ko law nak abadan continuer ko lu ñu mën ren lu mu def ren yalla nak def lu ko ëpp ndax li ñu defoon daw mo gënoon a tuuti ren moo ëpp daw ñëpp amon nañ mais bagages yi nek ci biir donc ren la gën a 200 ñuy def ni tay ji muy jappalé xalé yi nga xamné ne yor askan wi moy xalé ne ndax ndaw dañ koy muy donc Seydou Diouf ñëw taxaw ci and de ak ñun di chaque année mu fourniture valeur un million et quelques ñu jox ko 200 élèves yo xamné jamm gën lañ si ño xamné am en sixième dañ subvention bo xamné pour cette inscription donc d'une valeur de 1 million et quelques. donc ñu wax prix bi ñaata la kon dañuy wax Seydou Diouf gatcha Seydou Diouf bayiwul ay nitu dembam Seydou Diouf askanam Seydou Diouf bayiwul fimu dekk donc rawatina nak di cas social yi nga xam ne man maa ko jiite mu woo ma ci ruq wax ak man téema ci sutura lépp lu ñuy dox ci sociale nañ ko dox ci sutura te donc depuis boobu ba tey vraiment liñ ci def kenn xamul nu mu toll te tey jii ba tey jii jeexul ndax ku ñu xam moom moo nañu dem leen jege nit ñi am na ñoo xam ne mënuñu laaj bu ñu jegee nit ñi xam seen problème ñu woo ko téléphone wax ko du fanaan. ci li mu def nii da ko yàgg def. Seydou seydou kuko ko bëgg seetu ku ko bañ jàmm gën yëpp la boole ku ci son Seydou taxaw ku sonnul Seydou taxaw xoolu kuko ko xas kuko deun man ma daan xam man ma daan xex ñu ko wax ma doon kooku de ma mu leer de néeg bi mu makoy koy defaral parce que Touba Seydou lu mu bëgg yalla ko yalla may jàmm gën bu fekkee waroon rek pay and ak ñom Seydou mi leen yebal nak dëgg la Tëngéej la juddoo du doomi jàmm gën kon ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Diamaguène suñu fierté la mais nag fierté Tëngéej gépp la ndax li certes mi ngi koy def ci Diamaguène di dimbali nit ñi di dimbali ay dëkkandoom te it xam ne li nga xam ne moom la ñu wax ci dëkkandoo mi ngi koy mi ngi koy rafetal waaye li nga xam ne aussi mi ngi koy def ci Tëngéej ah loolu rëy la xam nga lii day geste boo xam ne rek nit ñi mën nañ koo gis mais li muy def ci suuf loo xam ne man mooy laa ci bu wor sax ndax nit febar mu dimbali nit ñew yor soxlam wax ko ko mu te kenn du ko ah loolu moo gën ëpp doole lepp ci li nga xamne moy li feñ ya gëna def li daaw da ko def mom événement bu ñew mu def na def tabaski da def tam xarit lepp lay def Seydou ko am sa tawat sa bokko waxe ci katanu yalla lam ci man lepp barki yenen ti benen na ko def bo amé analyse boo joxe mu faj mu jënd mu defal analyse bi bo amé ko feebar boo xé mu japp ci ba ñepp xam japp nañ ci mom Seyni Diouf loolu moom xam ko ci mom baax limi defal yi nak du tay at mu jot bu ñew at mu ñëwee mu jëndi kayem jëndi sagam defar ba mu baax